nuyu nañu leen yéen ñi suivre seen biir facilité la vie tey nag dina indi indilaat lu am am solo mu nekk phrase yi duñu tàyyi ci di ko def ndax phrase yi dafa nekk loo xamante ne si dafa am solo ndax nit ñi léegi dañoo bëgg di wax français te dañ koy wax ak ñoo xamante ne si ñoom duñ comprendre français bi ñoo ñu koy waxal te xamuñu français bi ñooñu noonu maanaam lañ bëgg dimbali ci vidéo bi bañ mën a làkk français phrase yi nag lu ci ëpp gaay dañ koy utiliser diglu leen phrase yi salut na ngeen def comment est le travail naka liggéey bi apprends-moi le français jàngal ma français je naa ko je ne peux ko je pense que c'est facile yaakaar naa ni yomb na je pense que c'est difficile yaakaar naa ne yombul je te dama laa jox cër je savais que tu viendras xamoon naa ne di nga ñëw le màggal apros màggal gi jege si na c'est demain suba la va demal wëri ko la maison est propre kër gi dafa set La maison est sale. kër gi dafa salte. Le marché est animé. marché bi dafa xumb. Donne-moi ton numéro de téléphone. jox ma sa numéro téléphone. Si te la donneré dinaa la ko jox. Tu es beau. danga rafet bu fekkee góor la. Tu es belle. danga rafet bu fekkee jigéen la. Tu es fou. dangaa dof bu fekkee góor la tu es vol dangaa dof bu fekkee jigéen la est-ce que tu me ndax xam nga ma frappe le dóor ko ne frappe pas les bul dóor xale yi mon père va à la mosquée sama papa di dem ci jàkka ja donne-moi jox ma lii monte sur le lit yéegal ci kaw laal bi ne me bul ma laal merci jërëjëf à tard ba ci kanam kon tey lii moo nekkoon vidéo bi fekkante ni si neex na la beset abonné activé cloche bi ñu ngi leen di jox diggéeye ci yeneen phrase yu gën a am solo waaye tamit yi leen di permettre ngeen mën a wax français facilement jërë ngeen jëf ba baneen yoon